je pense que Sénégalais ont compris ce qui s'est passé dans la confection de listes au niveau des législatives loolu c'est des réalités qui sont là je pense que jox nañu man bokkuma ci yëguma boobu ñu koy jox Khalifa Sall bi nga xam ne aujourd'hui il est condamné par l'histoire de la caisse d'avance euh, ñu jox ko liste bi pour mu defar ko mais bu la joxee liste joxuñu la carte blanche nga def lu la neex danga war a defar lu jaadu lu ñu ñi bokk ay gor diñ koy def de façon équitable mais mënoo ñëw ci list boo xam ne yaa ngi ko confectionné yow jël huit personnes neuf dix de gens de taxawu man Moussa Diop homme de droit ñu war a dem ci usine buy defar loi ma yelloo si nekk xam droit xam loi ñu ne ma yow ak ñi nga àndal yëpp. vous étiez ñaata ngeen woon. 88 candidats ñi nekk départemental ñi nekk. sur la jot na te je membre fondateur de Yewwi Askan Wi. oui mais ñun kenn ci ñoom nekku ci liste bi ni titulaire ni suppléant. mais Moussa maître Moussa xanaa da am problème ak Khalifa nag. bu kenn yëgul mais man waxuma ni le cas xalifa Khalifa ne m'intéresse pas c'est l'acte ci m'intéresse. acte bi mu def mais est-ce que interpellé nga ko moom directement ni ko grand frère est lii lan moo ko waral. Euh, je pense que euh, entre nous matul homme d'État matul grand frère. c'est-à-dire ah, ce grand frère là. non je vous dis. man je ne suis pas je ne suis pas dans les sénégaliseries je suis dans du concret fii j'ai géré l'argent public comme moom pendant six ans 88 milliards je l'ai géré à dem dëkk dërëm manque sinon dama toog fii je suis en détention mën nañ gérer donc l'argent public sans détourner mais le fait d'en parler parce que nous sommes au Sénégal dans un pays de démocratie lu wax di jàmbat ñu ne lii moo am ñu ne bu ci kenn wax nga wax ci ñu lay dafay sommation interpellative yàlla def ngeen bokk coalition ñu jox ko li si mu defar mun ma kii du si bokk parce que dafa ma waxoon li waaw ah, ci waxu caisse caisse d'avance bi dafa am loo ñu am d'état maintenant nag yàlla euh, yëf mais bi ngeen nekkee ci groupe Yewwi des fois daan nga ko woo wala daan nga ko message wala naka ngeen doon communiquer parce que leader nga woon euh, tu sais moom na man ñun dañoo war a xam yëpp xam ñun tamit dañu war a xam mais yéen les journalistes xam qui est clair précis mooy jox nañ ko le si def nañ du si neex au niveau de ñoom Moussa Taye ñu ngi retoon sur la liste. ah oui Moussa moom il est leader. il n'est pas leader. comment ça se fait que moom a nekk ci liste man mii leader bokk ma ci te bu ñu cotiser ma cotiser bu ñu xeexee ñu xeex bu ñu expliquer sur le plan juridique li ñu war a def yooyu ñu def ko bu ñu war a dem fu ñu war a xeex ñu dem. est-ce que tu <laughs> est-ce loolu sax moo tax kon liste nationale bi gars yi invalidé ko. parce que tamit loolu parce que problème bi tamit ba léegi yéen ba léegi am na ñuy jiiñ xalifa euh, ni ko liste bi bu ñu ko invalidé. dégg naa Thierno Alassane Sall barki démb di di wax loolu. non ñu ko wax bëri te bokkul woon. non bokkul woon mais am na ñu bëri ñu doon wax yeewi naan liste bi bu ñu ko invalidé. dégg naa Mamadou Lamine Diallo di ko. c'est un parfum de dealer rek c'est moom loolu la bëgg wax Thierno Alassane parce que bu ñu gisee tey mu nekk ci négociation yoo xam ne eh, ñuy ñuy ñuy doxal ñu doxal ñu doxal seen coalition ñu ngi doxal ak les jazz président nee na gis na la doxal. <laughs> soo gisee soppeeku boobu d'un seul coup. c'est parce que dafa jaar.